آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نوغي سمسون بروم سبحانه وتعالى نوغي كوي باك نوغي كوي كاñ ci ay turam yu sell ak ay melokaanam yu kawe yi nga xam ni sunu borom subhanahu wa taala day bokklewu ko ak kenn waaye nirlewu ko ak kenn noo ngi ñaan mucc ak xéewal ak jàmmi yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla bu mu dañ di dotti ak i xéewal ak i waamem xéewal ci kaw sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dana bokk ci liy feeñal mbégte ak kontante ci sante ko yàlla subhanahu wa taala ci waxtu wi nga xam ni ay nit yu bari dana nekk ci ay yitte yoo xam ni soo ko settantalee ba ca biir du leen jural luy jagal seen alaxira borom bi subhanahu wa taala baaxee ñu ginnaaw def gum nu def ay julit di jéem a tënku ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jéem sunuy waxtu ñu di ko jeexalee ci ay mbir yoo xam ne danañu jariñ ci suñu àddina jariñu suñu alaxira te jooxewuñ waxtu yooye fu gën a màgg te gën a rëy ci xalaqaat yi nga xam ne dañ fay sàkkoo xam-xam al imaamu nawawi rahimahullah moom dañ koo laaj ban naafila moo gën a rëy ci jaamu yàlla yi nga xam dañ koy def te nekkul ay farata ñu tuddee ko nawaafil mu ni sàkku xam-xam mu ne xatta naafila yi julli mu ni sàkku xam-xam xam-xamub lislaam xam-xamub sunna boo xam ni xam jëfee cay topp mu ni moom moo gën fuuf kon loolu da lay wan ngënee li sàkku xam-xam ak ni mu màggee suñu borom subhanahu wa taala defal ñu tawfiq nuy daje ci ay waxtu yoo xam dañ koy jeexalee ci di sàkku xam-xam ngir xam lu nu jariñ loolee nu ngi ñaan suñu borom mu boole ko ci jotaay yi muy barkeel nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bañ a def suñu jataay yi mu nekk jataay yi neen waaye mu nekk jataay yoo xam daf ñuy jëriñ fi dunia wal axira comme ni nu ko digee woon xam ngeen ni téere bi di buluugul maraam téere la boo xam ni borom xam-xame xeet wi yàgg nañ ko yittewoo ci di ko jàng ak di ko jàngale ak di ko sarxa ndax solo soo xam ni am na ko moom téere boobu ak li muy ndawe ndawe ci ay bët nu digee woon ni danañ tàmbaliwaat yoonu ñaareel ci nafar li nga xam ne moom lañ ci jotoon a jàng ndax bëgg a gaaw bu jeex wala di jàng di dem rek loolu nekkuloon suñu yitte waaye li nekkoon suñu yitte dëgg-dëgg mooy xam ci suñu diine lu ñu mën di jëfe mu tege ci ay dalil yu wér ah ci suñu àlluwa yam ñu xam ni foofu la ko suñu borom yemale yarhamukallah bu fekkente ni dund am na jot am aw fan am la sakka ni dañuy jël rek lépp loo xamante ni mënees na ko leeral ci téere bi ba keroog borom bi subhanahu wa taala dogal fam ko nam ma yamale kon dañuy sant sunu borom subhanahu wa taala bi mu ne defaraate tawfiq ñu dellu siwaat yoonu ñaareel ci leeral ak a faram-fàcce li nga xam ni moom lañ jotoon a jàng ci téere bi di bulughul maram kon dañuy sant sunu borom dëgg-dëgg cant goo xam ni cant gu màgg la cant goo xam ni cant gu kawe la cant goo xam day tolloo ak màggaayam ak ni mu kawee moom sunu borom subhanahu wa taala ndax xam ngeen ni waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy leeral alquran wax la joo xam ni nag maanaam lenn ci ay caaxaan wala ay njaxas munu caa dugg wala bu ca duggee yàlla dana sàkkat ay boromi xam-xam yoo xam ni dañ ko cay noccee comme ni nga xam ne noonu la ñuy noccee kawar gu tàbbi ci mooñ na xam ngeen ni wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax la ju yàlla garanti wax la joo xam dafa bàyyi ko ci maasuum muy ko yàlla fegal wax la joo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo koy defal ndëgërlaay muy jottali muy leeral li nga xam ne moom moo wàcc ci alquran yàlla subhanahu wa taala def ko mu nekk aw yoon wu nu war a jaar te daf noo digal nu topp ko ay bànneex ak ay njaxas loolee su ca tàbbee ay nit dugal ko ca yàlla dana tàggat ay nit yu ko ca génne su ko defee kon suñu tànnee téere bii nga xam ne moom mooy bulugul maraam min jamii adillati al ahkam di ko jàng tekkiwul ni moom rek moo fi nekk ci téereb xam-xam wala téereb xadis buñ mën a jariñoo ankay am na yeneen i téere yu am solo waaye téere bi dafa am ay misaat dafa am ay mbir yu mu ràññeetlu ko wala si yeneen i téere mbir yooya sabab la yi taxoon nu tànn téere bi di ko jàngale danaa tudd ca téye tomb yooyee ngir nga xam ni téere bi maanaam téere la bu am solo moo tax ñu ciy sonnee nii borom téere bi muy alxaafid ibn xajar bi mu taalifee téere ba noppi dafa wax ni xaratuhu taxriran baaliga mu ni téere bi day mool na ko liggéey ko sonn ci noseele ko toftalante ko liggéey ko liggéey bu rafet boo xam ni bu jotale la bu mat ngir képp koo xam ni jàng na téere bi ba mokkal ko wala bu dégg ko su boobaa mooy raw ak maasam loolu dañuy fàttali Cheikh Alim Gueye rahimahullah yal na yàlla yërëm ko bu daan jàngale téere ba yegg ci wax ji dafay dëggal wax ji mu ne lu wér la ne téere bi képp ku ko jàng nga mokkal ko nga dégg ko mu ne su boobaa bu yeboo nga xam ni maas gi nga tolloon moom yaa ci raw ci xam-xam te loolu moom yaakaar naa ni ñun jot na cee xam dara ndax liñ jot a mos ci téere bi tuuti na ci téere bi rek waaye firnde la bu lay wan ni maanaam ëmb na lu bare bari ci atte sharia kon loolu benn la ci mbir yi tax ñu tànn téere bi te ki ko wax mooy borom téere bi muy alxaafid ibn Hajar ñaareelu tomb bi tax te bokk na ci la mu wax mooy taalif na ko liggéey ko mool boo xam ni lu waay sori sori ci xam-xam di ngay dellu siwaat ci buruugul maraam borom xam-xam yu mag yi soo delloo ci seeni kàggu da ngay gis ni dañ cay lim di lim ba tuddaale buruugul maraam wala ñu lay delloo ci buluuxul maraam ndax téere la bu ndawe te mage mu ni ba léegi def na ko mu oyof maanaam diis na ba lu waay kawe kawe ci xam-xam di nga ko soxla waaye oyof na ba képp kuy tàmbalee sàkku xam-xam mën ngaa tàmbali ci téere bi moo tax ñuy wax ni buluuxul maraam du téere tàmbalikaayu xam-xam ñooñu xamul li ñuy wax lan la ndax liñ naan ahlu makkata adra bi shu'abiha wa makka ñoo gën a xam roq ya nekk biir makka kii jàng alifun baawun lañ ko wax kay kooku kay téere bi du tàmbalikaayam waaye ki fëri ijji bëgg ta xam dara ci sunna bëgg jàng sunna su set kooku la shakka ni téere Bulughul Maram ci téere tàmbalikaay la donte nag nangu nañ ñu am na yu ko gën a oyof tamit ñaareel bi ci li tax ma taamu téere bi ci di ko jàngale moom muy dafa boole diggante tënk ak matale loolu nag lu jafe la ndax léeg-léeg nit bu matalee dañ naan ah kii de wax na ba xaabaabal léegi la day wax sax ba yow da ngay dootoo bokkati ndax wax ji dafa ëpp da ngay xaabaabal wax lu bari te boo gàttalee dañ naan ah kii da daa gàttal mënoon na indi lu gën a bari lii mu indi waaye téere bi dafa boole ñaar yëpp indi na cig leeral loo xam ni leer na nañ te kenn du mën a wax daa xaabaabal waaye xadiis yi gàttal na ko gàttal goo xam ni ku ko xool xam ni gàtt na te kenn du wax gàttal ñu na loolu yaakaar naa ku jot a mos ci téere bi tuuti xam li may wax lan la bunt bu mu indi du ko guddal waaye dina ci indi loo xam ni guddul ba ngaan kii xaabaabal na ci indi xadis yu bari waaye gàttalu ko ba nga naan ah kii daa gàttal ñu ci bunt bi mënoon naa indi lu gën a bari lii waaye dana fexe dajale ci ay xadis yu gàtt yoo xam ni day gàtt ba noppi matal mboolem li gënoon wëri ci xam-xam ñetteel bi ci la tax ñu taamu téere mooy dafa boole diggante fiq ak dalilu fiq xam nga léegi da ngay dégg nit ñi ne dañuy jàng fiq fiq mooy xadis fiq mooy xadis maanaam xadis ci boppam mooy yax bi mooy tegtal yi mooy usul yi mooy delluwaay ya waaye fiq bi mooy istinbataat yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi di balluloo di ko génne buluugu maraam nag téere xadis la téere fiq la ki koy jàngale bu ko jekkoo te leeral ko leeral bi ci war da ngay gis ne daanaka xaw tuuti kon nga mën a bañ a teqalee ci léegi diggante fiq ak xadis kon loolu feeñ na ci téere bi ñeenteel bi ci li tax ñu taamu ko mooy rafet goo xam ne daf koo rafet te nose nu mu tëggee bunt yi boo dee xool miyaa ndox bu paree mu teg ci liy def ndox muy aaniya ndab su paree mu teg ci najaasaat sobe su paree mu teg ci wudu jàpp su paree mu teg ci tiim su paree mu teg ci num traité teyal moom topp ci kitaabul wudu masxalal xuffarin nawaqidul wudu adabu qadaa al xaaja tayammum xayba doog a dugg ci salaa boo dee xool ni mu nosee nii bunt yi ci boppam dafa rafet da ngay xool ne man nit ki bi ta bu tàmbalee di góorgóorlu ci diineem bunt yi muy aajowoo bunt par bunt moom la ko indi te bunt bu ci nekk wax dëgg yàlla faram fàcce na ko leeral ko kon téere la bu am solo juróomeel bi mooy ki ko taalif mooy al imam ibn hajar dafa bokk ci borom xam-xam yi nga xam ni dañuy dellu ci ñoom ci saa bu nu amee jaaxle ci xam-xam xadis loolu moom yaakaar naa borom xam-xam yi xam nan ko kàngam la goo xam ni lënt lënt ak lëj-lëj saa buñ ko amee ci ay xadis ña ñuy dellu moom xawma ñan la ñuy doon waaye alxaafid ibn xajar moom dana ca bokk ndax fóore la ju mat kàngam la ju mat ci xam-xamu xadis qadiman wa xadisan borom xam-xam yu njëkk yi xam nan ko ñu mu jiiti nit xam nan ko kon yii daal ay mbir la yoo xam ni sabab la yi tax ñu taamu téere bi ci di ko jàngale su ko defee ñu doon jéem di dajale lenn ci ay leeral ci ay waxi borom yi xam-xam loo xam ni yaakaar nañ ni mën naa faj suñuy tawat ci xam lu loo xam ne danañ ko dimbali ko suñu borom lii moo tax ñu soogu woon ci di jàngale téere bi comme ni ma leen ko junjee woon ci mbokk yi nga xam ni fekkee woon nañ ci jamono ba ñuy tàmbale téere bi bu ko defee ñu dajale woon ci ay leeral mooy leeral yi ñu doon jàngale tuddee woon ko awnul xabir fi sharx bulughil maram ci tawfiqu yàlla subhanahu wa taala ñu dajale lu bari ci waxi borom yi xam-xam yi xeet wi ci ñu yàgg ña ak ci ñu mujj ñi ci faram-fàcce li nga xamante ni moom mooy téere bi bu ko defee ñuy dimbanikoo sunu borom subhanahu wa taala comme niñ ko doon dimbanikoo ci yoon wu ne noo ngi koy dollee di ko dimbanikoo waat ndax kenn du doyal ci ay tawfiqaatam ak xéewalam comme ni ko ayuba doon waxee ñu koy ñaan mu defal ak ñu tawfiq ci yoonu ñaareel wi ngir mën a faram fàcce yoon wi nag incha allah dina wuuteeg yoon wale ci ay mbir te xam ngeen ni téere bi bañ ko doon jàng ak léegi daanaka xaw tuuti mi ngi bëgg a mat juróomi at juróomi at nag lu ne xaj daf li benn borom xam-xam di wax ni bis boo jàngalee ab téere wala nga sarxa ab téere wala nga jàngale ab dars mu ne boo demee ay fan nga gestuwaat da nga naan bu démb doon tey de li ma doon jàngale danaa ca yokk nangam wala nga ne bu démb doon tey de lii dugaloon naa ko ci waaye dinaa ko génne wala bu démb doon tey lii ni ma ko leeralee tey laa ko gën a jekku benn borom xam-xam mooy wax la te loolu wax ju am solo la mooy loo jàngale bari ki démb rek boo dikkaatee sax da ngay gisaat yeneen masala yu bees yi te mën a ñambaasuwaat moo tax incha allah yoonu ñaareel bi dina am ay tabdilaat wala ay taadilaat yu bari sax yu bari ay soppi yu bari incha allah yoo xam dana wuuteeg yoonu wu njëkk wa ci ay masaayil yoo xamante ni daanaka indi taxqiq di dëgg-dëgg ci xilaaful ulama xawoon naa des beneen bi ci des moom mooy ci leeral yenn masala yi nga xam ne daa am ay wuute ci borom xam-xam yi génn li nga xam ne loolu mooy li gën a nekk arrajih li gën a wér beneen bi ci des moom mooy ci gën a dolli leeral bunt yi yoonu ñaaral bi dinañ jéem bunt bu jeex danaa ko defal talxiis doo ko jàll loolu amul woon ci yoonu njëkk ba mooy bunt bu jeex balaa may jàll dinaa ko defal talxiis tënk ko ba mu yomba jàpp geneen wàll gi tamit dinaa fexe yaatal taxrijaat ak xadis yi mooy xadis bu ci ñëw nga xam ni nekkul ca Buxaari wala néew ci muslim nga xam ni borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yoonu ñaaral danañ gën a yaatal wax yi ci borom xam-xam yi wax ba mën a xam na xadis boobu lu wér la wala wérut balañ cee gën a gën a yaate beneen bi ci mooy ñàkkul ay xadis yoo xamante ni xëy na daifaloon nañ ko ci téere bi te ginnaaw bi gis nañ ay yeneen i càllale yu mu jaar ba nga xam ne xadis bi lu wér la wala ay xadis yoo xam ne wéraloon nañ ko ginnaaw bi ñu gis ne dafa daif yooyu yëpp incha allah danañ ko jéem a leeral ci ñaar yoonu ñaaral bi ñu ñaan yàlla soxla boole ñu defal tawfiq kon ci tàmbali bi rek danañ leeral lenn ci dundu ki ko taalif téere muy bulugul maraam muy alimam ibn hajar nga xam ni téere moom di ko jàng xam ki ko taalif kan la ak liggéeyu rëy yim liggéeyal sunna yaakaar naa loola bokk na ci liy gën a ñaax ndongal xam-xam li ci téere bi waaye bokk na ci li koy gën a ñaaxe ci soobuwaat ci yoonu xam-xam kon al imam ibn hajar al asqalaani rahimahullah su ma ko bëggoon tarjamaal ci tarjama ju gàtt damay wax ni al imam al xaafid al aalimu al xabr شيخ الجرح والتعديل صاحب الهمم العالية فريد زمانه وحامل لواء الجرح والتعديل وحامل لواء السنة في زمانه حامل لواء السنة في أوانه ذهبي عصره أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي ابن أحمد بن محمود ابن حجر الكنائي العسقلاني اصلا المصري مولدا ومنشأ ودارا ووفاتا sunu bëggoon a xamle kan mooy imam ibn hajar damay wax ni moom la ñuy wax alxaafis te xam ngeen ni darajat alxaafis daraja daraja la yu kawe yoo xam ne ñi ko am ci xeet yu bariwuñ dañ ci leen kii ab ustaaz wala ab aalim wala ab faqih wala ab mufti wala muhaddis wala nangam waaye alxaafid daanaka xaw tuuti kon su ma bañu loon mubaalax damaan aala darajaat moo gën a kawe ci martaba yi ni xamee ni kii moom wax dëgg yàlla fóore la ci xam-xamu xadis doy na ci firnde rek bu ñu alxaafid moom ci teguñ ci dara sa xel ci ibni xajar lay def loolu yàlla may na ko ci xeet yi qadiman wa xadisan saa bu ñu alxaafid moom ci teguñ ci dara sa xel li muy njëkk a jot ibn xajar lay doon doon ci am na yeneen xuffaas yu dul moom al aalim borom xam-xam bu mag la al xibr fóore la joo xam ni foo takk xam-xamam rek daanaka weesu na ko cheikhul jarxi wa taadil xam-xamu wéral góori càllale yi ak daifal góori càllale yi imam ju mag la ca te xam ngeen ni xam-xam boobu xam-xam bu rëy la ah moom la ñuy tuddee ilmul jarxi wa taadil nga xam ni ci la borom xam-xam yi soobu nag roof di mën a xam ah xadis bi ndax dafa baax ndax diw mi ne ci càllale gi diw mi boo toppee askanam mooy diw mooy nangam dafa daif li tax mu daif lii la loolu la ñuy tuddee ilmul jarxi wa taadil boo demee ci xam-xam boobu imam la ca saaxibul himam al aaliya borom bébét yu kawe yi loolu boo jàngee dundam xool ay taalifam di nga xam ni kii ku kawe woon ay bébét la faridu zamani bu dikkee ci jamonoom dafa mel ni kuñ ca doon joxañ baaraam la ndax pour nga mën ko wutal morom ci xam-xam ca jamonoom jëm doon dund ñoom jamonoom te loolu lu jafe la xaamilu liwaa i sunna fi awaani darapub sunna darapub yëkkati sunna ak di wasaare xam-xamu sunna moom moom moo ko ŋàbb woon ci loxoom jamonoom kon ku sori woon la ci wasaare sunna zahabi yu asri boobu taggu mag la ku xam al imaamu zahabi ci mën a mokkal ci xam-xam xam xadis ci xam siyar man dama koy tuddee maanaam muarrixu ahli sunna wal jamaa mooy imaamu zahabi boo demee ci siyar siyaru alami nubala wala nga dem ca talxiis ba nu mu tuddati tazkiratul xufaaz ci ngay xam ni imaam ju mag la ci xam-xamu siyar saa buñ nee la yow yaay imaamu zahabi ci sa jamono tagg nañ la ndax ku mënoon a mokkal la zahabi yu asri mën naa ne moo nekkoon zahabi jamonoom ci kéemaane ci wàllu xam-xam amirul muminina fi lxadis mu ne amirul muminin mooy ki jiite jullit ñi am na amirul muminina fi lxadis mooy koo xam ne moom buñ dajalee jullit ñi moom yaay seen amir ci xam-xam xadis kooku nag lu rëy la ci ñoom abi hurayra ci ñoom imam malik ñoom imam shuba di wàcc ba yegg ci imam ibn hajar am na ñu ko am ci xeet waaye bariwuñ Shihabuddin mu ngi tuddoon Abul Fadl Ibn Hajar Abul Fadl di Ahmad Ibn Ali Ahmad doomu Ali doomu Muhammad doomu Ali doomu Muhammad doomu Ali doomu Mahmoud ah doomu Hajar al-Kinaa'i al-Asqalaani Asqalaan moo nekkoon dëkk ba donte ci biir Égypte la nekk ci biir Égypte dëkk bu ñu tuddee Asqalaan fa la imam ibn Hajar juddoo fa la sosoo fa la jàngee wala bokk na ci fi mu jàngee fa la këram newoon te it fa la faatoo imam ibn Hajar ndongoom lu ñuy wax Shamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman as-Sakhawi te ndongalu gën a siiw ci ndongoom yi mu laa zamana ibn Hajar lu mat fukki at ak juróom loolu xam ngeen ndongo yi dañ ko doon faral di def li ñu tuddee mulaazama loolu nag dafa mel ni dafa bëgg a xeewi xaw ma jamono ko xeewil xaw ma sëriñ si amatul jot gu ñuy toog di jàngale xaw ma ndongo yi bëggatul jàng xaw ma lu xew waaye dañ doon def li ñu tuddee mulaazama mulaazama mooy seet koo xam ni ku nu doyloo la ci xam-xam wala fànn koo xam ni kii moom doyloo nañ ko ca ma takkoo ca ak moom guddeeg bëccëg du ma tàqali comme saa saa sax këram laay nekk di jàng ci moom loolu xam ngeen ci jamono ji ci jamono yi saxaaba ya la ko saxaaba ya tàmbaloon jëf ak yonent bi abi hurayra xam ngeen lu gàtt gàtt gàtt rek li mu jot a fekkee ci yonent bi ñetti at yi da koo mulaasa moon yëpp ba yonent bi faatu sallallahu alayhi wa sallam moo tax amul ciw tiis lu ko gën a mees faatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuaym ibn al mujammil ndongo yi gën a mag ci ndongo yi ibn abu hurayra la bokk moom mulaasama na abu hurayra ishrina sana ñaar fukki at Nuaym al Mujammir mi ngi nekk ci ron keppaaru Abu Hurayra moo tax li ëpp looy xam ci Abu Hurayra boo jaaree ci Nuaym xam ko xamoon na ko bu baax. bu ko defee kon as-Saxaawi ndongoom lu mag loo xam mulaazama na ko fukki at ak juróom daanaka téere bi gën a siiw ci taalif yi wan dund Ibn Hajar waa ji moo ko taalif muy as-Saxaawi Abdurahman as-Saxaawi mu ne urifa bi Ibn Hajar nisbatan ila ali Hajar soo demee Misra. nga dem dëkk bu ñuy wax asqalaan am na giir gu ñuy wax aali xajar seen maam amaan na wallahu aalam ah bu ñuy wax mahmud ibni xajar moom la ñuy askanalee giir bi comme léegi njaayeen wala fami nangam comme ni mu amee ci ñun nisbatan ila aali xajar giiru xajar mu ni ca la bokkoon moo tax ñu naan ibni xajar donte du xajar mooy baayam xajar ci maam ya la bokk arab yi nag dañ doon def loolu dañ doon bàkkantal nit fekk ca maam yaram ko dàkkantale nga defee ne bàyyam la mu ni ibn xajar mi ngi juddu fukki fan ak ñaar ci weeru Shaaban Shaaban mooy weer bi jiitu weeru koor fukki fan ak ñaar ci weeru Shaaban mi ngi tombe woon ak sept cent soixante treize hijri sabon wa salaasa sabarin sept cent soixante treize téeméeri at ak ñeent fukk téeméeri at ak juróom ñaar fukk ah juróom ñaar téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak ñett aywa juróom ñaar téeméeri at ak juróom ñaar fukk ñett comme xam ngeen ni kii ku ku sori la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo ne ci mag ñi la bokk nag ba léegi moom laa wax mbokk yi léeg-léeg bu ñu ñenn ñi mag ñi dañoo xamul dañoo xamul rek àddina bi fa mu tàmbalee woon juróom ñaar téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak ñett kooku sori na yonent bi lool sori saxaaba ya te ci mag ñi la bokkoon loola mi ngi tombé woon daanaka mille trois cent soixante douze milaadi mille trois cent soixante douze tey ñu dem ba daanaka mille neuf cent daanaka deux mille lan deux mille sept daanaka boo ko xoolee ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri la boo jëloon deux mille sept nga moyee ko ci mille trois cent soixante douze lu mu la jox rek loola moom mooy ba Ibn Hajar faatoo ba tey ba juddoo ba tey loolu ay at yu bëree bëree bëree bëri la lay jox kon ku yàgg la mu ne bi mu juddoo dafa juddu nekk jirim moom fekk papam faatu am na ñu ni fekkewul papam am na ñu ni ahanka yi fekkee na ko waaye dafa teel a faatu moom papam yaayam moo ko yoroon yaayam tamit daanaka ñetti at la am ak moom génn àddina benn waay bu ñuy wax zakiyuddin alxarrubi zakiyuddin alxarrubi sëriñ la woon ci moom ci xam-xam mbokkum deretam la woon ci moom xam ci xam-xam moom la ko bàyyam dénkoon tamit bi muy faatu Zakiyuddin al-Xarrubi moo nekkoon njiitu commerçant yi ci jamono boobu ci Égypte yarhamukallah ba day Misra commerçant yi soo demee seen association bi ñu amoon foofu Zakiyuddin al-Xarrubi moo nekkoon seen njiit ba pare nekk bàyyi ci Ibn Hajar ba pare moom moo ko yar moo ko dugal daara mu jàng Alquran waa ji baaxoon la bi même juróomi at moom Ibn Hajar ci la ko yóbbu mu jàng alquran balaa moo am juróom-ñeenti at mokkal na alquran ku yéeme woon la ci mokkal sëriñ bi ko doon jàngal nee na par bis bi mu nekk xale bu la juróome par bis day mokkal nisif bis bu ne mu mokkal nisif xam ne loolu ñun ñun ñu yore daara yi xam nañu loolu yombut bis bu ne xale buy doog a tàmbale xale bu sori sax mën naa mokkal nisif par bis waaye ko ne kuy toog a tàmbale juróome di mokkal nisif par bis loola moom min alaamati nubuux xale bu nar a ñor bu màggee moo koy feeñal noonu la ibn xajar meloon moo tax bi mu am juróom-ñeent te fekk na mokkal na quranul karim tombam ñaareel bi dinaa ci leeral zikru talabihi lil ilm maa zikri baadi shuyuxi wa tullaabi dinaa leeral lenn rek te li may talxiis rek ci ni mu doon sàkkoo xam-xam ak ay sëriñam ak ay ndongoom loolu nag danañu ñaax ñu xam ni ndekete maanaam ñoom dañ doon jàng waaye jàngantuwul woon noonu li ñuy def mën nañoo seet ñeneen nuñ ko tuddee nu dul jàng waaye ñoom lañ doon def moom ku ko xool te dégg ko da nga xam ne lii du njàngant waaye am njàng la moo tax wala fi di lépp ni njàng yàggut jàngant moo yàgg imam ibn hajar al imam saxaawi mi ngi nettali mu ni ruziqa ibn hajar surat al xifzi ibn hajar yàlla da koo teel a may gaaw a mokkal fii sigari depuis mu nekk xale ndax ni mu mokkalee quran ci juróom-ñeenti at ci la tàmbalee bi mu jàng alquran ci sëriñ bu ñuy wax sadruddin as sufti sadruddin as sufti moo ko jàngal ba mokkal quran donte nag ulumul quran xam-xame alquran jàng na ko ci yeneen i borom yi xam-xam mu ni ci la tàmbali di sàkku xam-xamu hadis nee na ci ndawam noonu ci la mokkal téere bu ñu tuddi al umda ci xam-xamu hadis alxaawi téere fiq la ci mazhab alxanabila alfiit aliraqi ci mustalah alxadis muxtasar ibn alxaajib ci wàllu usul mulxatu aliarab ci wàllu naxwu manhaj alusul albaydawi ci alfuruur wa usul alfiq ci mit ci lay wax ci la daal di moom kalaat ci mit alfiit ibn maalik kooku ci wàllu naxwu sarf lay wax tanbih kooku téere bu mag ba ci xam-xamu mbirum imam shafii yi keneen ñu naan la kii amoon na junni sëriñ yarhamukallah kon kañ naan la kii am na junni sëriñ moom surtout que ay imaamu tabarani ku ci yéeme la woon moom dafa taalif al mu'jam al saghir wal mu'jam al awsat wal mu'jam al kabir te benn bu ci nekk soo demee ci al mu'jam al saghir nga xam ne moo ca gën a tuuti sëriñ bu mu mas a jàng bu nekk day indi benn xadis bu mu solo ci yow soo demee ci al mu'jam al awsat sëriñ bu mu sa jàng mën na ci ñaari xadis soo demee ci al mu'jam al kabir sëriñ bu ne mën na ci ñetti xadis ku yéeme loon imam tabarani ku bari woon la ay cheikh imam ibn xajar tamit daanaka noonu la meloon ci lim bu bari lool fi nun ndax juróom-ñetti téeméeri cheikh ak juróom fukk moom lu bari la tey ndax tey yaakaar naa ku dajale fukk moom ci ñi ñi gën a jàmbaare ci ngay bokk ñoo xam ne ku ne jàng nga ci moom jàngantuwoo ci moom wax dëgg yàlla ci ñi gën a jàmbaare ngay bokk moo tax taalif na benn téere tuddee ko almajmaul muassas wal mujamul mufahras almajmaul muassas wal mujamul mufahras téere boobu ibn xajar moo ko taalif boo demee mboolem ku ko jàngal rek daf laa tarjamaal wax sa dund ca téere boobu loolu nag aada la woon ci ndongo yi dañ ko defal sëriñ si di taalif ci seen dund di wax jéego yu rëy ak liggéey yu rëy ak taalif yu am solo yi nga xam ne liggéey nañ lu mu doon jaamoo yàlla nuñ meloon loola ndo ndongo yi doon nañ ko def waaye ibnu xajar moom ki ko gën a defal mooy alimamu saxaawi moom nag defal na ko ay sëriñam te borom xam-xam dañuy wax ni bari ci sëriñ soo jàng bari ci sëriñ soo jàng da lay gën a ubbi kenn ci salaf day wax ne ida aradta an taarifa xataa cheyxika fa jaalis gayra fa in alladi yaqtasiru ala cheyxin waxid kal mutazawiji bi imraatin waxida mooy su fekkee bëgg ngaa xam njuumte yi cheykh bi def loolu nag tekkiwut comme ni ma koy faral di waxee mbokk yi tekkiwul damay jub di toppaatu sëriñ bi ay juumteem comme ni ko ñenn ci ñun di defee léegi te mu nekk lu lu lu lu lu musibawu déedéet dana bëgg xamal ni benn kenn mënul yenu lépp ci xam-xam faw mu am lu mu xam am lu mu déedéet bala ngaa xam nekk ci xam-xam dañ koy jëlee ci kii jëlee ko ci kee dajale doo ko am waaye du kenn rek ci ngay jëlee lépp da ngay dem ci ron kee paaru beneen cheikh nga toog muy jàngale nga déglu kon di nga xam ni kii am na lu mu yore kee am na lu mu yore kii am na lu mu manqué ma nga ca kee kii am na lu mu manqué am mi ngi ci kii mu ne loolu firnde bi mooy mi ngi mi ngi yore kii yor benn soxna mu ne kii yore benn soxna mënul xam mukk mukk mukk mukk cakk dund li ñuy waxee ci biir néegu sëy mukk mënu koo xam parce que benn soxna mënul dajale lépp benn soxna mënul dajale lépp waaye boo dajalee kenn dajale ñaar dajale ñett comme ni ko l'islam maye ba ñeent da ngay gis ni kii jàmbaar na lool fii waaye nag côté bii noonu dafa jàpp gën a dimbali ndongal xam-xam Ibn Hajar nag bokk na ci li ko gënoon a dimbali ci sàkku xam-xamam mooy yàlla dafa defoon bàyyam dafa amoon xaalis bàyyam ku ku ku oomaloon la bi bàyyam di faatu nag bàyyil na ko lu bari bari bari ci alal waaye lépp da koo sàkkoo xam-xam jëndee ko ay téere ba mu jeex tàkk subhanallahi alazim mu ngi mel ni rek tey kuñ ñi bi bàyyam faatu biñ ko miraatee am na cinq millions ci miraat bi ñu ne ana cinq millions yi ñu ne lépp jënd na koy téere gis ngeen kooku ni mu yéemee suñuy bët loolu la ibnu xajar meloon moo tax borom xam-xam dañuy wax ni ibnu xajar bu toppee génn calale ak xadis di indi calale yi mu jaar xadis bi wér wérul fii waaye jaar na calale gi diw soloo na ko jëlee nañ ko ci diw calale yi muy génne dafa yéem nit ñi parce que kii fan la jëlee li muy wax parce que maxtutaat yi dafa yombul woon jamono jooju jënd téere dafa yombut da ngay bëggub téere yor sa xaalis dugg ci marché bi sax doo ko gis moo tax am na luñ doon tuddee ak nassaaxuun mooy ñi nga xam ne ñooy nas ko ba ba ordinateur yi amagut photocopie amagut nas ko benn waaye ma ñëw mën a bind rek moom loolooy liggéeyam da ngay ñëw ni ko ah man day buloogul maraam laa bëgg ko ma ko nasxal mu ne la fay ma ñaari junni nga fay ko ñaari junni mu ne la alxamis bii di ñëw na nga ñëw jël si ko boo ñëwee da la koy defaral comme ni téere bi mel nga jox ko moom lañ tuddee nassaaxuun borom xam-xam ne kenn ku ne da nga ci doon am kenn moom lañ tuddee nassaax wala ñu tuddee alwaraaq alwaraaq warraaq mooy koo xam moo la doon bindal xam ngeen imam Bukhari ñoom ñu ko jàng da lay wax am na warraaq koo xam ne moo ko jege woon doon bind li nga xamante ni moom la doon taarif bu ko defee ibnu hajar rahimahullah yàlla def ko mu nekk koo xamante ni yàlla boole woon na ko ci famille bu am xaalis waaye ñoo am xam-xam ndax Zakiyuddin al-Xarrubi ak benn sëram bu ñuy wax sittu rakb nga xam ni borom xam-xam bu mag la woon nga xam ne ibnu hajar jàng na ci moom te it bokk na ci ñi ko gënoon a yar ndax danañ wax ni hiya ummi baada ummi surtout rakk bi de mooy sama yaay ginnaaw bu sama yaay faatoo kon kooku jege woon na ko lool kon ñooñu bokk nañ ci ñi ko dimbale woon ba yàlla defal ko tawfiq mu fël fël rek nekk ab fóore ci xam-xam bokk na ci li ko dimbale ba mu mel ni mu mel mooy ñaan gu mu ñaanoon ci ndoxum zam-zam xam ngeen yénti yàlla bi ne maa u zam-zam lima shuriba la xadiis la bu wér yénti yàlla bi ne ndoxum zam-zam di ku ko ñaan te sellal sax ñaan la nga te ñaan yàlla yàlla dana la ko may ibn hajar dafa aj bi mu demee mu naan téye loxoom zamzam mu ni maa ngi ñaan yàlla mu def ma ci xam-xamu xadis ci mën a mokkal ak man koo leeral comme imaamu zahabi daal di naan ndox loola comme xam dañoo xam ne yaakaar nañ ku xool ni mu dundee da nga xam ne kon ñaanam nangu la ibni baar mu ne ko naana mu ne yàlla buñ dem yowmal qiyam tiis waag lëndëm boo yàlla ko ci musal kon gis nga ñoom liñ doon jëfee xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su defee kon dajal woon na ci ay cheikh lu bare bari dem na mag jaar na Madina jaar na Jérusalem jaar na jaar na Dimash jaar na Yaman Iskandariya ak Sham yii réew ma lim ak yu bare bari Ibn Hajar jot na faa jaar kon tukki na tukki yu bari te lii ay réew la yu ndaw yoo xam ne waaye boo jàngoon yeneen dundi borom xam-xam da ngay xam ne ñoom yàgg nañu tukki yàgg nañu wasaaroo ci wasaaroo ci kaw suuf di gëstu li nga xam mooy xam-xamu xadis suñu bàtt wax dëgg yàlla ku xool borom xam-xam yi ci xalaat yi ñuy def imam Soba bi ma tudd sànq rek Soba te ibn al-Hajjaj gis nga xadis ak innama al amalu bin niyat xadis ak innama al amalu bin niyat kese kese rek topp càllalem tukki na ci at at mu ne ci àll bi di wër rek di wër rek kuñ ne ko fii la ca kii moo ko solo mu dem ci mu ne ko du man muy wër rek benn xadis boobu da nga ci gis ku jamaan ci àll ba sonn daanaka xobi garab da koy lekk dañu ci nettali koo xam ne dem na ba am tuur ndox sax naan na ko su fekkee jum imam ibn abi xaatim dem na ba àll boo xam daanaka moom tuur ndox rek naan ko moom fi sas mbaadee ndax amatuñ luñ naan comme ñooñu doon nañ sonn ci wër da nga ci gis koo xamante ni dañ koy tuddee am xeetu picc am na xeet ci picc yi picc moo xamante ni garab gum tong balaa faa jógee dana lekk la fa ne ci xob yëpp borom xam-xam noonu lañ ko doon tuddee ñu ne lu tax ñu ni fu ne la fa tukki te fu mu tukki sayx bu mu dem dana fa boor boor lam nekk ci xam-xam lépp doo ko jàll feneen kon ñoom noonu lañ doon def ci xam-xam daanaka léegi la xew yi rek léegi la nit ñi deltu gannaaw ci xam-xam waaye ñii ñi lañ doon sonn pour wattu sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam am naa su ma doon wax lenn ci ay sayxam damay wax zeynu diin al iraqi zeynu diin al iraqi moom moo gën a fës te gën a mag ci sayx yi nga xam ne jàngal nañ imam ibn hajar Ibn Hajar daanaka fukki at nekk na ko ci ron keppaaru Zeynu diine la Iraqi jariñ ci moom ci wàllu xam-xam jàng ci moom li mu taalif jàng ci moom yeneen téere jël ci moom xam-xamu xadis ak li nga xamante ni moom mooy ilmul mustalax yooyu yëpp mu jàng ko ci moom xataa sori woon na lool ci xolob sëriñ bi ndax Zeynu Diin al-Iraqi benn bis day jàngalam yàgg ñu ne ko ah waaye sëriñ bi yow xam naa ne yàlla may na la ci xam-xam waaye yow yaakaar nga ne fi mu nekk nii boo faatu woon tey am nga ku la mën a wuutu ci xam-xam mu ni waaw waaw ñu ne ko kan mu ni xanaa imam Ibn Hajar te xam ngeen seede bu rëyee doon bàyyi ko ci cheikh dem ci ndongo bi nga xamante ni wax dëgg yàlla daanaka seede bi mel noonu yaakaar nañu yàlla rek a war a tax seede boobu seede bu rëy la bu lay wan ni kon ndongo lii kat moom gën naa fas ci biir ndongo yi wa kadalika siraju din al balqini al rawda téere fiq bu mag boobu nga xamante ni imam nawawi moo ko taalif ak dalailu nubuwa nga xam bayaqi moo ko taalif siraju din al balqini moo ko jàngal ibn hajar badru din ibn al mulaqin badru din ibn al mulaqin ibn hajar jàng na ci moom lu bare bare bare ci wàllu fiq gis nga ñett ñii nag gis nga ñett ñii ñooy ñett ñi gënoon a fës te gënoon a yiim ibn hajar moo tax ibn hajar day wax ni mu ne ñett ñii day ñoo nekk nekkoon kaaw ceefu seen jamono ci xam-xam mu ne góor naa ci doon keppaar bu ne waaye ñett ñii zeynuddin al iraqi badruddin ibn al mulaqin sirajuddin al balqini mu ne ñett ñëw ay kaawteef lañu woon te li gënoon a yiim ibn hajar ci wàllu xam-xam ak xam madhabu shafii ndax xam ngeen madhabu shafii moo gën a siiw ci Égypte ak li ko wër ci mazahib yi waaye mu ni ñoom boo dee xool mu ni bu ma xoolee seen tarjama kii daa judd ci nii at kay judd ci at ma ca topp kay judd ci at ma ca topp mu ni même bi ñuy faatu noonu lañ faatoo kii daa faatu kee faatu at ma ca topp kee faatu at ma ca topp ñoom ñett ñi nee na loolu bokk na ci li ko gën a yéem ci ñetti sëriñ mi moo tax ta fonk na leen lool ci ni muy taalifee su ko defee Afifuddin ad-Nisaburi Ibn Hajar jàng na ci moom xadis Fayruz al Abadi boobu xam ngeen ni moom moo taalif Qaamusul Muhiit Qaamusul Muhiit téere bu mag la ci bu am solo ci wàllu luga jàngkat yi xam nañ ko téere bu Fayruz al Abadi moo ko taalif ba pare moom mi ko taalif moo ko jàngal Ibn Hajar jotul jeex nag mu ko koy jàngal waaye jot na cee sori. wa kadalika Shamsuddin Ibn al-Qattan Ibn Hajar jàng na ci moom luga jàng ci moom xisaab jàng ci moom fiq Nuurul Aadami jàngal na Ibn Hajar làkku arab jàngal na ko tamit fiq Izz ibn Jamaa Ibn Hajar jàng na ci moom li nga xamante mooy mustalax ak usulul fiqh Ibn Hajar taxoon ak moom tamit ba faatu wa kadalik Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Ahmad at-Tannuxi kooku ci Serigne Ibn Hajar la bokk Ibn Hajar mu ni doon jot naa nekk ci ren keppaaram ñetti at di jàng ci moom. Shamsuddin Muhammad Ibn al-Ghumari kooku moom kaawteefu jamono la ci wàllu naxu naxu moom bu ñu mosaan a am gàkk gàkk dañuy dellu ci Shamsuddin al-Ghumari kooku jàngal na Ibn Hajar jàngal na ko luga wa kadalika jàngal na ko tamit yeneen i xam-xam lu mel ni xam-xamu adab ak arud ak yu demee noonu wa kadalika Ibn Hajar tamit jàng na ci ay jigéen loolu nag kaw ci fi ku mag la ponkal mu day ni ci xam-xam jigéen jàngal ko léegi la am ay sayxaat di xew yi waaye bu njëkk moom waxuma la jàng ci benn jigéen waaye jàng ci ay sayxaat alxaafid ibn Asakir boo jàngee dinañu wax ne juróom-ñett fukki jigéen sëriñ yu jigéen jàng na ci ñoom alxaafid ibn Asakir ibni hajar am na sëriñ jigéen ibni taymiya ibni alqayim ibni asakir zahabi ibni kathir ñii may limal koo ci liir dundam dañ lay wax ni jiw ak jiw ak jiw ak jiw ci jigéen ñi ay sëriñam lañu woon subhanallah alazim xoolal tey tey moom yaakaar naa am benn sayxa bu jigéen ndam la ndam la léegi ku am ci ñun foog nga dal ndamoo ko parce que amatu loolu moo lay wan ne kon jigéen ñi kon bi ñu commencé gannaawee ci xam-xam yàggut ibni hajar jàng na ci sëriñ bu jigéen bu ñuy wax fatima bintul munajja at tannuxiya jàng na ci Fatima binti Muhammad al-Maqdisiya Fatima binti Muhammad al-Maqdisiya Ibn Hajar qara'tu alayha kathiran min al-kutubi wa ni'ma shaykhatu kaanat mu ne jàng naa ci moom téere yi bare bare bari waay waay sëriñ bu mën a jàngale te baax a ngi nii Ibn Hajar ak nim mel ku mu yéemu ci moom te nga nekk jigéen kooku laa sakka ni kon fóore la woon ci xam-xam kon daal dama lay bëgg a wax ni Ibn Hajar jàng na ci ay sëriñ yu bare bari dem na ba mu nekk ab shaykh bu mag bu ñuy joxañ baaraam ba daanaka madahib yi yépp léeg-léeg sax da ngay moom xam nga ci mazhabu Shafi'i la nekkoon loolu tekk dafa tënk ci mazhab ba lépp loo xamante ni comme ni ko ñenn ñi defee man ci maa ngi mazhabu Shafi'i ba bu ma gisee wax joo xam daa juyoo xadis sax mazhabu Shafi'i la tekkiwul loolu mi ngi woon ci mazhabu Shafi'i wala Hanabila wala Maliki yi woon ñu ne ci yeneen i ngir sax dañ doon bàyyi seen i ngir ñëw ci moom di sàkku si xam-xam parce que xam nañ ne kii fóorale ci xam-xam loolu nag dem na ba addina bi yépp daanaka dañ ñi ko dégg ak ñi ko jot a xam aw turam siiw fu ne ay nit di fa bàyyi koo di wari gileem ñëw di jàng si ci moom kon yàlla defal na ko tawfiq ba jot naa am ci ay ndongo Zakariya ibn Muhammad al Ansari borom xam-xam bu mag la Ibn Hajar ko jàngal wa kadalika Shamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman as-Sakhawi mooy ndongo bi gën a siiw kooku moom mooy ki gën a siiw te gën a mag te gën a yaatu xam-xam ci ñi Ibn Hajar jàngal muy as-Sakhawi Abdurrahman as-Sakhawi Ibrahim ibn Jamal ibn Ibrahim al-Qalqashandi kooku tamit ci ndongo Ibn Hajar la bokk. Ash-Shams Abdu Duhaq ash-Shumbati kooku tamit ibn Hajar moo ko jàngal al-Izz ibn Fahd kooku tamit ibn Hajar moo ko jàngal ibn Urkmas moo ko jàngal al-Biqaa'i tamit ibn Hajar moo ko ak ñu bare bare ñoo xam ne su ma leen doon lim wax dëgg yàlla ci xam-xamu xadiis ak xam-xamu fiq boo xoolee ay fóore lañ ca woon imam ibn Hajar moo leen jàngal kon lii da lay wan ni maanaam bari ay sëriñ firnde la buy war a bari baril ay ndongo waaye baril ci ñoo xamante ni jàngal nga leen amma ibn Hajar jikkoom ak melokaanam yàlla dafa defoon njoolut woon gàtt waaye gàtt la gën a jege dafa sewoon dafa tuuti woon lool sikkim bu rëy la amoon weex tàll daf ko doon fuddan léeg-léeg mosoo koo gis nag lu dul ab yéreem da ko doon ci digg yaram loolu ñu ko parjamaan ñëpp dañ koy wax indi tubay moom maam indi ko ci digg yel comme sunna yonent bi yére bu mu mat a am moom moom noonu nga koy gisee ku oyof la woon foo ko fekk ci biir këram mi ngi toog ferang laay waaye mi ngi yore ab juzu di jàng ku ku ku ku rafetoon ay jikko la beneen ndongoom day wax ni man de ndax mas naa kaa gis mu mer ak li may yàgg ak moom lépp ku bari woon lu mu doon julli guddi la julli guddi moom daanaka dafa doon aada julli yor yor kadaarik danañ woor tey dog suba comme sunan koorub daawud ku ko taxaw woon na ba ni mu faatoo moom ibnu hajar rahimahullah ku toroxlu woon boppam la benn bis gars yi dañ leen foo kii de lim taalif ci téere xam nga gars yi dañ mën a jayaate rek mu ne ah wax dëgg yàlla da ngeen a baax rek moo tax ngeen di wax li ngeen di wax waaye man de li ma taalif man est ce que am na lu ci am solo man li ma taalif lépp daanaka bi ma koy taalif gone laa moo tax boo demee xam nga tamit nit ki li mu taalif bi mu nekk gone loolu laa sakk du mën a bokk ak li mu taalif bi nekkee mag est ce que xam ngeen loolu li mu taalif balaa sunna di leer ci boppam du bokk ak li mu taalif bi sunna leer ci boppam moo tax kuy liiral Ibn al-Qayyim te xàmmeewoo loolu di nga yàgg daanu ci ay kàmbu te doo ko yëg Ibn al-Qayyim daa am Ibn al-Qayyim avant muy gisee ak Ibn Taymiya am Ibn al-Qayyim ginnaaw bu mu gisante ak Ibn Taymiya firnde ma la ciy jox rek mooy boo liiree Madaariju Saalikiin téere la boo xam moo ko taalif man téere boobu maa ngi fàttaliku bi ma koy am booba daanaka sama lu àggut fenn sax boobu xam nga xaw ma dara daanaka ma naan boobu maa nga ca classe yi di jàng waaye téere boo ko tiimee di ko liir sax sa bopp bi day métti doo xam kii li muy wax lan la ay waxi falsafa yoo xam ni waxi sufiyanke yoo xam ni bul xam ni lan la benn jëmmi jamono laa ci waxtaan ak benn mbokk mu leeral ma ni man loolu kooku ci tekaay ma ne ko yow yaa ngi doog a wax kii boo liiralee lii da nga naan kii ko taalif du Ibn al-Qayyim mi ma xam ci sunna kon yooyu tamit dañ koy ràññatle moo tax kon mu naan li ma taalif bi ma nekkee gone ah loolu de tax koo am solo ndax mën naa am ay njuumte yu bari am na ca waaye xam nga loolu bu ko waxee wallahi oyof kese la ndax téere yi mu taalif ci bi muy nekk gone ah téere yooya boo ko xoolee téere yi gën a mag la ci ilmul mustalah téere yu mag la li muy tuddee gone ay ñeent fukki at jëm suuf ay nuxbatul fikr fathul baari téere yooyu da ngay xam ni téere la yu am solo kon maanaam loolu ak tawaaboo rek moo taxoon mu koy wax kon loolu lenn la woon ci lu ma mën a tënk ci dunduk ibnu hajar donte def na yeneen i faram-fàcce ak i leeral incha allah dinaa ko leeral ci dars bii di ñëw bu ko defee dinaa leeral tamit bulughul maram ñaata ci ay boromi xam-xam ñoo ko sharxa ci lu ma xam ci ba ko ibn xajar taalifee ak tey su ma noppee ci loolu dinaa leeral lan mooy manhaju ibn xajar nan la fas yéene taalifee téere bi ngir yow di nga mën a xam nan nga koy jàngee su ko defee ñu doog a tàbbi ci buntu bu njëkk muy kitaabul miyaa ñu ngi ñaan yàlla sunu mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين نونغي سان سونو بروم سبحانه وتعالى bi mu defalaa ci tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam xam ngeen ni ci sunu bind bi weesu nu ngi tàmbali woon ab muqaddima ci téereb alxafid ibnu xajar bi di bulugul maram min jamii adillati al ahkam maa ngi taxawoon ak yéen ci melokaani imam ibnu xajar jikko yi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala defaloon na ko ko dafa mel ne léegi ngeen njëkkoon a ngir moo gën a leer waxoon naa ne alxaafid ibnu xajar al asqalaani rahimahullah nekkoon na ku yàlla subhanahu wa taala defaloon mu nekk nit ku am taxawaay donte du lool dafa tuuti woon aw yaram maanaam rëyut woon ku leeroon am xar kanam la
ku doon toroxlu la nekkoon na ku sëqoon ab sikkim ndax xam ngeen ni magoon magaloon na demoon na ba ba jaaw ba jaaw gi bari lool ci sikkim bi ba dem ba weexal ko ku gaawoon ab dox la ku rafetoon ay jikko la doon ku ràññee ku ci jëfe sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàttal tubay ndax ñi ko xam dañuy wax ni tubayam foo ko mas a gis da ngay gis mi ngi ci diggu yeel bi ma waxoon leen ni ndongoom la ñuy wax burhan al biqaa'i mu ne gisuma ko dàq nëbb mer ka al imam al xaafis ibn hajar mu ni néew na tuuti kon sax nga ni doo gis meram ndax bari gu mu bari lu mu doon nëbb mer ku taxoo woon la ak julli guddi ku taxoo woon la ak julli yoor yoor te xam ngeen ni loolu mu moo nekkoon da bu salaf maanaam ñoom doonul woon wax rek di bari waaye dañ doon wax tamit di jëfe ku taroon la tamit ci ñañ bi daa imam ibn hajar al asqalaani soo ko laajoon kan nga gën a bañ dafa lay wax kuy def bidaa ak a bañoon ñañ bidaa yi moo tax kaana shadid al inkaari ala ahli al bidaa ku bari woon la ku sonnoon la ci ni mu doon taralee ci ñoñ bidaar yi ndax moom la shakka ni ci yoonu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci yoonu ahli sunna wal jamaa ci la doon woote donte am na rëcc ci danaa ko leeral léegi tuuti insha allah te mënul ñàkk ci benn borom xam-xam ndax damay faral wax li kulli jawaadin kabwa fas wu yàgg a daw te mën a daw bis dana ñëw nga fa kastalu wa kadalika tamit ku bari woon la lu mu doon dépensé alalam ci suyuux yi ko doon jàngal ak tullaab yi mu doon jàngal moo xam ndongo loo xam ne ibnu xajar a ko jàngal moo xam sëriñ boo xam ne jàngal na ibnu xajar ñoom ñëpp xam ngeen ibnu xajar waxoon naa leen ku bari woon alal la ci loo xam daf ko doon ne woon ci way juróom bu góor daf ko doon dépensé ci ndongo yi di ko dépensé ci sëriñ yi nga xam ne sax jàng na ci ñoom wa kadalika ku oyofaloon boppam la bokk na ci li mu doon wax mooy lastu arda an shay min tasanifi siwa fatxil baari wa muqaddimati man day wax dëgg yàlla li ma taalif ah amut solo dara dara amut ci solo xanaa fatxul baari daal nga xam ne ci la sorxa buxaari xanaa boobu daal moo ci am solo ak muqaddima bi mu ko defal muy huda saari wala alhadyu saari boo demee ci fatxul baari mu jalat bu njëkk bi nga xam ne mën nga koo limaale mën nga ko bañ a limaale moo tudd huda saari mën naa ni boo bëggee xam dëgg-dëgg manhajul xaafis ibn xajar ci fatxul baari yaa ngi koy xamee ci huda saari moom mooy muqaddima bi nga xam moom la ko liggéeyal wane ana ban manhaj ci la liggéeyee téere boobu nga xam ne mooy Fathul Baari wa kadalika doon na wax ni maanaam ah téere yi nga xamante ni moom la amal solo de mooy Fathul Baari ak Mustabih ak ak Tahdib ak Lisaanul Mizan nga xam tuddoon naa ko di passé lu mel ne Nuxbatul Fikr ak Taaliqu Tagliq waaye mu ne lu dul taalifam yooyu de ah mu ne yooyu de taalif la yoo xamante ni bu doon nit la dañ naan daa mar am ndox amut solo ndax bi mu koy taalif gone la loolu nag bi mu koy wax laa shakka ni ci buntub oyofal boppam ak toroxlu ak ñàkk gis liggéeyu rëy yi mu liggéey la ci wàcce boppam te loolu moo nekkoon doxalinu salaf ci di wàcce seen bopp di sukkandiku ci waxu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nit ki du wàcce boppam lu dul yàlla subhanahu wa taala moo ko yëkkati te fekk bi mu wàcce boppam yàlla moo tax muy wàcce boppam amma bind tey bi dana tàmbalee ci yenn fitna yi nga xam ne doon na ko dund te loolu lu mel ni munafasatul aqraan moom la ñu tuddee munafasatul aqraan mooy xëccoog maas yi léegi bu ngeen xoolee da ngay gis ni borom xam-xam yi li ëpp suñu jamonoonteel léeg-léeg danañ faral di xëccoo ci ay masala joxar bente ay kàddu loolu ci xeeti nattu yi la bokk wa illa dajeeg ab buur wala yu demee noonu boo xam dafay fitnaal borom xam-xam boobu loolu nag munafasatul aqran benn nattu la bu gaaroon imam ibn hajar ci dundam loola nag maanaam njëkkewu ko xam ngeen ni boo xoolee yàgg na ci borom xam-xam yi soo xoolee diggante imaamu malik ak ibni abi zib kenn ku ci nekk borom xam-xam bu mag la la chak donte imaamu malik la ñu gën a xam waaye imaamu malik borom xam-xam bu mag la wa kadalika ibni abi zib ñoom ñaar ay waqante kàddu doxoon na ci seen diggante te loolu xam nga fagala bu cheytaan yi fa seen diggante moo tax rahimallahu al imam zahabi imam zahabi boo demee ci siyar su ma jumut lu ëpp juróomi yoon lu ëpp juróomi yoon li ibaratin muxtalifa lopp juróomi yoon ci ay kàddu yoo xam ne xëy na bi yoon ni mu koy waxee ak beneen ba du bokk waaye daal li mu bëgg a wax foofu rek mooy munafasatul aqraani tutwa wala turwa li nga xam ne ay waxante kàddu la yoo xam ne borom xam-xam yi jamonoonteel ñoo koy waxante mu ne yooyu moom tutwa da ngay lem rek sànni wala turwa jërul tax di nettali parce que yooyu forgo cheytaan yi foo seen diggante la léeg-léeg dana indi ay wax ci diggante diw ak diw ba noppi mu ne lii lépp terewul ñoom ñaar ñëpp ñu baaxoon lañu yal na yàlla fay ko yëpp al imaamu Malik demoon na si ba munafasa yooyu doxoon digganteem ak Ibn Habis Ibn ba Ibn Habis Ibn Malik daa war a ñëw fii ci digg penc mi ni tuub na ci yenn kàddu yu mu wax bu ko defee dañ ko war a rey xam nga loolu rëy la loolu doxoon na seen i diggante wa kadalika al imam al Bukhari ak Muhammad ibn Yahya az-Zuhali xam ngeen imam Bukhari ku mag la te bi muy doog a dugg si Nisaabuur fekk fa Muhammad ibn Yahya az-Zuhali Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ci boppam xalqa bi mu doon jàngale dafa wax ni bu subaa day ku neex mën ngaa bañ a jàng si ndax dañuy tertu imam Bukhari xam nga ko kon yëg na ni borom xam-xam la beneen bi ci des mooy doon a digal ndongo yi mën ngeen dem ci moom jàng ndax borom xam-xam bu mag la waaye booba xamoon na ni am na masala bu mu wuteeg imam Bukhari lu mel ni lafzi bil qur'ani maxluq xam ngeen alquran dañu dox maxluq kooku nag lu gudd ay wax la yoo xam ni détaillé ko wala leeral ko mën naa jël ci sama waxtu waaye daal bëgg a wax ni alquran nekkul waxi yàlla waaye mbindeef la mun sàkk loolu mooy fitna ju mag ji nga xam ne ca la imam ahli sunna imam ahmad ibn hanbal tàggoon ba mu ca génnee nekk imam ahli sunna waaye dafa am leneen lu ñu tuddee lafzi bil qur'ani maxluq kaddu gi may waxee qur'an moom dañ koo sàkk léegi waxatuñ alquran maxluq maanaam lafzi bil qur'ani maxluq léegi alquran moom waxuñu nag maxluq la waaye man kaddu gi may wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu kan moo ko wax ah yàlla soxla moo ko waaye kan moo ko jottali maa ko jottali léegi ñu ne lafzi bil quran jottali gi ma ko jottali maxluuq dañ koo sàkk yooyu nag indi ay muskila yu bare bare bari ba Muhammad ibn Yahya Zuhali xam na ni wuute naag Bukhari yi pas-pas moo tax dafa digaloon ndongo yi mbirum lafzi bil quran maxluuq bu ko kenn laaj Bukhari tax bu ngeen ko ko laajee rek dina jur fitna te su boobaa danaa jot jonjonteeg moom te bëgguma loolu kon commencement bi ñu ngi doon moytante waaye imam Bukhari nekkal baxril mutadaffiq géej goo xam ne day tulli tullee ki duusam ndax xam-xam bi ni mu baree woon te ni mu mënee mokkal imam Bukhari mën naa tax a wax junni xadis yoo xam ni benn xadis bu nekk bokkul ak morom ma ci sëriñ bu mu ko solo maanaam dal junni xadis yoo xam ni fi mu taxaw mën na koo tari te junni xadis yi ci junni sëriñ la ko solo kooku xam-xam yaatoon na lool ndaw ngay dem ba yëg loolu commencé gàddaay xalqab imaamul Muhammad ibn Yahya Zuhal dem ci imam Bukhari fiiraangeeg yooyu dox seen diggante ba jafe-jafe am ci seen diggante ba fitna yooyu mën naa ni ci la imam Bukhari génne ne Saabuur dem Bukhara ci dëkkam ba mën naa ni genn wàllu xam-xam bépp fa la tuuroo ba fa la faatoo. wa kadalika su ma ko doon topp day bari lool loolu doxal na ci diggante imam Ibn Hajar ak imam Badruddin al Ayni Badruddin al Ayni ak imam Ibn Hajar ñoom ñaar kenn ku ci nekk sharxana Bukhari. Badruddin al Ayni moo njëkk a tàmbali moo njëkk a jeexal moom mi ngi sharxa Bukhari tuddee ko Umdatul Qaari fi sharx al Bukhari wa Umdatul Qaari sukkandikukaayu ki nga xam ne mooy jàng fi sharx al Bukhari sharx al Bukhari amma Ibn Hajar mu sharxa ko tuddee Fathul Baari fi sharx al Bukhari Fathul Baari téere la bu am solo dinaa ci leeral léegi incha allah ci bind bi yooyu dox ci seen diggante. ba fitna yi métti lool léeg-léeg ñuy waxante ay kàddu léeg-léeg kenn ki wax ci morom mi loo xam ni maanaam da lu yéeme lay doon yooyu nag maanaam mbir la yoo xam ne taxu koo am solo lool du tekki nag ni maanaam kañuy wax ci moom ay kàddu wala ko koy wax dafa baaxut waaye loolu fa la boo xam ni seytaan yàgg na ko fa ci borom xam-xam yi almalikul muayid billah moom moo nekkoon jamono jooju amirul muminin al muayid billah moom moo nekkoon amirul muminin atum juróom ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent dafa tabaxoon benn juma dafa tabaxoon benn jàkka jàkka ji bi mu ko tabaxee mu bëgg mu nekk jàkka joo xam dañ fay sàkkoo xam-xam mu jël imam alxaafid ibn xajar ni ko yow yaa jàngale fiqhu shafii fiqhu imam shafii yaa koy jàngale ci biir masjid bi jël badruddin al ayni ni ko yow yaay jàngale xadiis te ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk imam ju mag nga ah ñoom ñaar ñi ngi jàngale ci jàkka ji kii am na fa xalqa kii am na fa xalqa waaye joxar bentey kaddu ak wàqentey kaddu léeg-léeg mu am ci seen i diggante juma bi ñu tabax ñu dem ba ab diir benn wet ci wetu sooroor bi fàq bi mu fàqee benn birig daal di cay watti bi muy wadd tombeek am na kuy jàll birig bi toj bopp bi bi mu tojee bopp bi imam bi amir digle na nañ tëj porte boobu pour mën a defaraat jàkka ji fekk loolu imam ibn xajar mi ngi jàngale ci jàkka ji badruddin ay ni mi ngi jàngale ci jàkka ji kii di jàngale fiqhu shafii imam ibn xajar kii di jàngale xadis ah bi loolu amee ñoom kenn ku ci nekk da ngay seet occasion boo am rek wax ci sa morom ay wax wax ci sa morom ay wax ñoom ñaar ñëpp nag comme ni ma ko waxee kenn ku ci nekk ci imam ju mag nga imam ibn xajar mu ni li masjidu ma la masjidu mawlana al muayyidi rawnaqun منارته بالحسن تعلو وبالزين يقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسن أضر من العين إمام ابن حجر بيغا خمنتني خير بفقنا بايكو جي سورور بي وقت دال ci bop ben way bu don jall ray ko imam ibn hajar mun li masjid la masjid al mawlana al muayyid rawnaqun ah jumaa yi sunu kilifa gi de sunu njaati gi de day am na taar lool manaaratuku bil xusni taaluma bi zayni sooroor bi kawe na lool ci wax dëgg yàlla boo ko xoolee de fës naa ko taar mu ni yaqulu wa qad maalat alayhim tamahalu mu ni bi nga xamante ni sooroor bi daay jeng di waaj a daanu amir mi ngi naan tamahalu wala boog maa ngi leen di digal teey leen mu ne fa laysa ala xusnin adarra min al ayni mu ne gis nga taar dara gënu caa bon bët bu aay loolu lu mu ci jublu mooy da kaa bëgg a wax ne yow badruddin al ayni bët bu aay nga badruddin al ayni fa laysa ala xusnin adarra min al ayni da kaa bëgg a wax ne sa bët bu aay bi moo fàqloo sooroor bi mu daat mu daanu loolu la ko bëgg a wax badruddin al ayni daal di koy tontu ni ko manaaratum taaruusi lxusni is juliyat wa hadmuha biqadai illahi wa bilqadari qalu usibat biaynin qultu za galaqun ma afatu lhadmi illa qissatu lxajari ke joxar bi na koy kaddu gaarawaale ko ni ko sa bët bu aay bi moo tax lee fàq mu ni ko manaaratum taaruusi lxusni is juliyat sooroor boo xam dafa mel ni seetab taar jamono bañ ko jajaxee mu jëm ca kaw kon rafet na mun waxat muha màbb gi ñu màbb sooroon pour di ko defaraat bi qadaa illahi wa bil qadari yàlla moo ko dogal daa fekk ni daa war a daanu rek daanu mu ni qaalu usibat bi aynin am nañu naa nooy bët bu aaya ko jàpp mu ne maa aafatul hadmi gaab gi nekk ci ñu màbb ko illa qisatul xajari nekkul lu dul xeer wa màbboon dal ci bopp waa ji faj ko kenn ku ci nekk wax nga sa soxla keneen na ko li ko gaar moom mooy al ayni fa laysa ala xusnin adarra min al ayni taar amul lu ci gën a gaay gaaw bët bu aay te kii mi ngi tudd badru diin al ayni kii ne ko maa aafatul hadmi illa qissatu al xajar daab gi nekkul lu dul xeer wa daanu woon al xajar mooy xeer ibni xajar wa kadalika noonu nga koy toppee da ngay gis kenn ku ci nekk di wax ay morom ay wax yoo xam ne taxu ko am solo lool waaye loolu lépp foog seytaane la rek boo ko toppoon mën na andi ay misaal yu bare bare ci borom xam-xam yi jokkar benn tey kàddu yi doon dox seen mais est-ce que taarifu téere ba mu jeex taarifu téere ba mu jeex di ci ŋàññi diw sàngam waaye nag li lay firndeel ni ñoom bokk nu woon ak ñoom mooy ñu amul ak ragal yàlla Muhammad Siddiq Hasan Khan saaxibu rawda annabiya am na benn borom xam-xam bu mu jamononteeloon fàttina toog teewlu ma tur bi fi ma toog waaye ay waxantee kàddu ba taalifantey téere di waxante yu ñaaw sax dox na seen diggante waaye xoolal seen ragal yàlla fi mu tolloon guddi gi ñu dikkee ci Mouhamed Siddiq Hassan Khan ni ko kooku day faatu na doomam mooy nit li mu ni keroog reerut ndax am mitit mu ne mu yëngal bopp bi ni tey day jantab xam-xam moo fàq xoolal suñ doon séqalantey kàddu moom la fiiril tey ni jantab xam-xam moo fàq ci leeral ni suñu diggante di li ci doon def nekk lu dul foofu seytaane rek waaye tekkiwul ni moom lu dul ku baax la kon gis nga loolu moo lay wan ni kon ñoom mu tolloon nañ ci ragal yàlla ak wattandi ko ak tegu ak góorgóorlu foo xam ni dum leen fa dab ba mukk kon ma dugg ci zikru baad fasaani fi ma tuddal la lenn ci ay taalif yoo xam ne imam ibn xajar moo ko taalif loolu tamit da lay tax nga xam dayo bi nga xam ni borom xam-xam bi am na ko imaam ibn xajar bi muy tàmbalee taalif boobu vingt trois ans la am ñun nag ku toll ci vingt trois ans mooy soog a sóobu ci yoonu sàkk xam-xam moom bi muy tàmbalee taalif mi ngi am ñaar fukk